رضي الله عن قطب المكتوم وبرزق المقطوم خوت الصمدان ابي العباس احمد تيجان الشريف رضي الله تعالى عنه مبكي ني نيوا سونو دارسو فاكيت طلاب تي مصباح تي في تي تيري بو ماك بي مي فاكيت الطلاب بو شيخ سيد حاج مالسي رضي الله تعالى عنه غورغينا تاي ميغي بوغ واخ nan nañu lalee mbalaanu wasifa ak lan mooy mbalaanu wasifa su saaj maa ne nasru nasru thawbi nasru thawbi manduubu nuqil xam nga dama wax ne inda buluuqi sabi min jawharatil kamaali nasru thawbi manduuban dag naan nag nasru thawbi tasaare mbalaan maanaam tàllal ko man duubun man duuban lu lu ñu sopp la man duuban lu ñu sopp la nuxi la toxal na sopp googu nuxi la toxal na ko jëlee ko ci Seexna Tijaani Chérif radiyallaahu taala anhu kañ lañ ko sopp mu ne inda buluuqi sabi fas suñu amee su suñu jotee juróom-ñaari per min jawharati kamaali ci jawharatu kamaal sop Cheikh na Tidiane mo moo santaane ne suñuy wasifa ba am juróom-ñaari per ci jawharatu kamal sop nan ñu tassare mbalaat ñu bari nak so demé ci jakk yi ñu ci bari loolu duñ ko def dañuy commencer rek talal mbalaat bu mu tal ñaret ñu bëgg moy nga xaw ko lem su fekkee na na bu bu ñoom danaan nan tek nale ñu tollee ci kamal indi mbalaan mi ndax jaw ëratu kamaal du yonent bee tax ñu lal mbalaan bi su doon yonent bi ne gën a lal lu gën a foor am mbalaan te lay leeral na du jëwhara xadara xadaratu jumaa texte am benn texte bu wax ne xadara dana la war a lal mbalaan bi amul te sa daxaj maay dañ nee na dañ koo xiyaas ci wasifa comme wasifa moom texte ñëw na ci cheikh wax na ne sopp nan sooy wasifa soo amee juróom-ñaari per nga tàllal mbalaan mi ñu ne comme lee mbooloo la te liiti mbooloo la te jotaay bi yépp ñoo yam ñu xiyaas ci ne kon nan nan lal mbalaan rek ci xadara mais lal mbalaan amul ci xadara amul ci texte benn téere bind ko cheikh mosu koo wax waaye nag dañ ko wax siyaasa ajmaa yi ne dañ ko xiyaas ci wasifa te wasifa ni yonent bi teewee nu la teewee ci xadara xadara sooy demaale rek sayyidul wujudi ak sena ak Cheikh na Tijaani ak xulafaaul arba te texte ñëwu ci pour ñu lal mbalaan kon la ci déggee lal mbalaan mi du yonent bi mais jawharatul kamal la jawara moo foor foraay boo xam ne ci comme jawara nag soo koy jàng soo ñëwee juróom-ñaari per sayyidul wujudi day agsi xulafaa wa arbaa agsi ci jotaay bi Cheikh na ñëw ak ànd ak saxaabe Cheikh na Cheikh yi suñ tollee foofu rek dañuy lal mbalaan bi foofu bëgg nañ sax sa jotaay yow bi nga doon toog bi ngay wasi ba nga gën koo defal mu a gën a rafet ndax teggin yi ngay am ci jotaay bi ak teewlu gi ci nga amee ci wàllu anwaaraat ci ilaahiya moo tax lu lu jar a bàyyi xel la teggin yi teggin yeeg dal geeg juut juuti déeg yépp nga xam ne barab bi laajul loolu teggin rek la laaj teggin yi nag mi ngi déparé sa xol yow ni ngi cay teewloo sa cër yi ñu ngi koy dalalee lan la waxoon sa julli nga dal ànd ak yam sa cër yépp nga na dégg xam ne gën ñëpp mi ngi ci jotaay yëg-yëg boobu soo ko amee ak teewlu googu doo saña di juut juuti jaayu nag kenn kenn kenn terewu ko jaayu moom nekkul lu ay nekkul lu lu ay ndaxte nit ki ni mu toll rek mais juut juut boo ko toog ba si yàgg nga jóg soppi toogaay jotaay wala ñoo xam ne ci dangay gis ñuy wasifa ferenkulaay ferenkulaay du ñëpp ko sañ du ñëpp ñoo sañ a wasir di ferenkulaay xaas ci ñi nga xam ne ci àgg nañ ci xaas ñoom ñoo sañ a ferenkulaay ñoo xam ne ci ñoom kënk lañ ci tariixa bi waxuma la ngënk ci tariixa bi nag nekkut da cee yàgg nit mën naa jël tariixa bi tay tay àgg ci xaas yi kooku kooku niveau la boo xam ne yàlla la ci yéege mais du ak yàgg du ay at laa nekk ci tariixa bi dama cee bejjaaw nit mën naa bejjaaw ci tariixa bi nit am ñetti at ëpp la ci doole parce que yeg yeg yi ñoo toll ak maqama yeg ak yeg yeg bi ak doxlin benen bi moy wasifa dadi lo xamne ci ñepp ñoo wara yekati yëkkati seen baat gis ñuy wasifa melne dafa am ñu wara yekati seen am ñoo xamne ci ñom ni re la def tok ni rek te wasifa amul loolu xanaa sëñ bi fekkee yow da nga nekk kilifa walla yow nga ne dara nga jotaay bu tol ni sayyidil wujudi toog nga am yëg-yëg boobu xulafaawu toog nga am yëg-yëg boobu Cheikh na Tiyaani toog wallaay xam nga ne yow jotaay boobu doo fa dara kon yow war ngaa yëkkati sa baat ndax yëkkati baat bi farata la soo yëkkatiwu sa baat bàyyi nga farata lañ cay bañ rek mooy ñu yëkkati yéew baat yi kii jaar fii kii jaar dañ bëgg dañuy wax ne bu baat yi ruubee te bu ay sadday oyof te bu mbiijaan di des mbiijaan mooy xëccaan lii la mu wax moom Cheikh na Tijaani kon na yëkkati baat bi loolu tamit lu jar a bàyyi xel la ci wasifa suñ tollee ci balaa euh, wasifa loolu war nañu ko leeral na nit sañu toog ci mbalaanu wasifa toog na makk makkiiral di yaloo yooyu sooy wéet nga koy def ñëpp Cheikh Seydi Hadji Malick si jamonoom Alaaji Abdu moo ko nettali nee ne daraan wax ne diw ya de ko diw de yow de Cheikh su kontaan ci yow ndax kenn déggu sa baat kon yëkkati baat yi lu am solo Cheikh Seydi Hadji Malick danaan ca kaw loolu lañ ko bàyyi xel moo tax mu ne daal tasaar lal lal mbalaan di tax mu am solo lam lembelaan bi bi dafa am ay sew-sew yu ci nekk tey ji yow soo julli timis maanaam julli woo timis ci jàkka ja dangaa jullee timis ci kër gi dem di wasifa ji fekk gaa yi ñu ngi soo ñëwee dugg ci jàkka ji nooy def dangaa war a def tahiyatu masjid wala dangaa dem war a dem ci mbalaan ma directement c'est-à-dire maa mu wax moom donte na am na ñeneen ñu wax leneen dane fekkee fekkee leen ci maanaam li nga li la leer na yow soo fa nekkee di def taxiyatul masjid ñu ñu jeexal wasifa bi bu fa nekk di def taxiyatul masjid taxiyatul masjid du farata te wasifa bi farata la te yow nag soo duggoon ci jàkk ci fekk gaa yi tàllagun mbalaan bi da ngay xam ne ñoom ñoom ak seeguñ ci juróom-ñaari per yi dont na ñu ngi ci jëwatu kamaal mais gis nga ñu lem mbalaan bi da ngay xam ne yow mii ñii ak seeguñ ci juróom-ñaar mais soo ñëwee fekk ñi nga xam duñ tàllal moom doo xam ban per lan toll doo xam am nañ juróom juróom wala juróom-ñaar moo tax talal mbalaa mi lu am solo la fekkee waxtu dagana naafila la nga dugg ci jàkka ji ñi ne am na ñu ne da ngay def taxiyatu masjid sa sa ma ne nag fekkee ne leer na la yow ñuy jàng leen fekk ci laa ilaaha laa defal sa taxiyatu masjid soo paree nga fekk leen ci wasifa mu ne wal yasaay na yaatu almakaana barab bi ñuy jàngee jëwatu commence sitatan juróom juróom benn fii tamit sew sew da cee am dañ koy jaxase ah am na ñoo xam dañuy wax ne fi nga am droit jàng jël ko day fekk juróom-benn nit ña ngi ko teew maanaam am na ñoo xam ne si wasifa ñetti nit d'accord ci parce que nee duñ su ñëwee ba si jawdi komal bi dañ koy watee salaatu faatiha am na ñu koy def de te waxul la yaatu gi yaatu laab lan la wax yaatu laab fi nga sañee toog di fa jàng jawdi komal laab gi war naa espace bi lab gi nek warna mana am juroom ben nit yo xam suñ fa ñepp da fay barab boobu da fay nek barab lab tay yow ti misal suñu tok fi fi nga tok fi am sobe ngay tok fi di jàng jawru kamaal parce que so xolé baytul khalwa yi njëkk yi kenn nit rek mo ci xaj so demee ci abi sanxoon cheikh baytul khalwa yi mu daan dugg khalwa ben nit ñaar nit mënu nek ci bir néeg ko xana xanaa di jàng jawru mal aha kay waaye la la Cheikh toog ak la wër néeg bi yëpp dafa war a laab loolu jawru kamal da ci fiir fekkoon na julli la yow même fi ngay julli nii taxaw fi nii sa kanam soo mën naa nekk si kanam bu ko laal rek jawara nag nanguwul loolu jawara lim nangu mooy laab gi day nekk laab boo xam ne ci juróom-ñaari nit juróom-benn nit day nekk espace boo xam ne ci espace juróom-benn nit suñ ci toogoon espace bu toll nonu war naa am lap nga sañ jang jeur du ko mal mais waxun la juroom ben nit ñoy tok nga jeur du ko mal motam mo ne wala yasa'i ya yaatu lap al makana place ba cité tatan juroom ben kama kom ni nga xamne qad qalahu waxna na ko tijani cheikh na tijani shirif tajul ulama moy neppal borom xam-xam yi taj moy fii di leer manam buri daan am ay ay mbaxana ñuy sol legi ki bur ci dëkk bi mbaxana bi mi sol amul benn nit bu koy sol sañu sol ci dëkk bi moom dong moo koy sol mbaxana mi day gudd ci kaw kooku cheikh nak moy tajul ulama tajul borom xam-xam yeb moy sen taj mune ne tayammumi salati in qara'ta bihi ala ala wirdika ma harajta muy wat benen masala yow wasifa dafa jot julli jot na am loo ndox yàlla wal nga tiim julli timis wala nga tiim julli tàkkusaan sa tiim boobu nga tiim julli si tàkkusaan am nga droit wiitu ci bu fi nekkaat di tiimaat donte na am na ñeneen ñu wax ne day tiimaat soo gisee alaaj maay indi yi tamit dafa am ñu wax leneen dafa am ñu ne soo paree da ngay tiim wiirdawaat déedéet mun la bul tiim tiim bi nga tiim julli ci doy na sëkk tiim boobu nga mën see jàng sa wirdu nga mën see def sa xadara juma doy na sëkk nga mën see def sa wasifa waaye nag amuloo droit nag di si jàng jawharatul kamal tiim moom kenn di si jàng jawharatul kamal moo tax mu ne tayammumu salaati tayammumu ak tayammuma lépp baax na tayammumu tayammumi lépp baax na tayammumi salaati tiimal julli tiimub julli in qara'ta nam ca bii ci dimb ala wirdi ko sa wirdi bi ma xarajta bakkaru ma xaraj xaraju nag mooy gis nga bunaat nu koy këll bi wëree noonu lu mooy xaraj maanaam ni këll bi di sonalee bunaat bi noonu wër ko nii maanaam lu toll noonu amu ko ci bàkkaar yow maanaam defuloo dara lu garaaw maanaam mbir mi ma xaraja amuloo benn tiis bàkkaarloo mu ne nag li kulli di janabatin musaafirin qiraatul wirdi bila munaakiri te dangay tukki am loolu ndox yore janaba janaba nag mu ngi firi koo xam dafa soree suñu borom baat bi foofu la jógee nit ki su yore soowee dafa am malaaka yoo xam ne dañuy ànd moom dañuy daw su laabee nag malaaka yooyu dañuy nit malaaka yooyu di la soree nag te nit koo gis am na cent vingt quatre mille karaw xar yeeg nit ñeeg bàyyi mi yëpp cent vingt quatre mille taxta kulli chehre nag janaaba soo amee sobee nag sori nga suñu borom moo tax ñu lay ñu lay tuddee ku sori junub mooy ku sori suñu boroom soo laabee nag jege nga suñu borom mu tax mu a li kulisi janaabatin nee na bépp borom janaaba musaafirin ko di aji tukki qiraatul wirdi jàng wirdoom bila munaakiri ci dul benn eh, werante dul benn weddi maanaam yow da ngaa yore janaba amuloo sa ndox moo sangoo wirdo jot na wirdool tiimal nga wirdoo tiimal nga wasifa tiimal nga xadara parce que wirdo bi ak wasifa ak xadara laazim la ci yow faratala te taxoo ko yow foo mën di toll dont na kon amuloo loo laabee ah góor gi nee na nga tiim nga wirdo nga tiim wasiba nga tiim xadara donte na am na ñu wax leneen mais li wér mooy yow da tukki nga dégg ci kon fekkee muqim nga am loo droit def loolu dakaar mënoo fee nekk na koñ bi amul ndox damay tiim wirdo géej gaa ngi fii ah mais day fekk nga nekk ci tukki mu leer la yow amuloo ndox te mënoo mënoo jëli fenn ndox soo boobaa nag man nga tiim nga wirdu tiim wasifa tiim xadaratu juma tiim wasifa tiim xadaratu juma loolu lay góor gi wax kazaalika ni ko noonu timit a sayfiyu soo yore janaba man ngaa jàng sayfiyu su fekkee man ngaa tiim jàng soo ne xesbu sayfiyu mooy naatam soo ne xirzu yamaan yi ngay wax te ñoom ñaar yëpp benn lan xerzul yamaan yi ak sayfiyu ñaari baat yi la yu bokkut waaye benn téere bi la xirsul yamaani yi ah, yëpp téere benn téere bi moo tudd noonu xirsu nag mooy li ñu xam ne ci dalay aar moo tax sayfiyu bu njëkk ba mag ñi daan ko daan def téere di ko takk waaye nag mbind ma moo xaw a metti mbind mu metti bi mooy condition yi nga koy bindee moo nekkul condition yu yomb charte yi àgg na ci fanweeri charte yoo xam ne ci pour nga fokk nga dajale ko doog di mën a bind affaire bi moo tax mag ñi bu njëkk ba suñu la ko daan suñu la ko daan bindaloo dañ lay tegal sa añ fële parce que yow toute la journée yow doo añ doo lekk parce que soo soo defee benn jëf bu dul yeesal njàpp rek day yàqu ak yeneen i charte yoo xam ne ci day xaw a metti moo tax góor gi daan wax rek ah nan ko fi jéem a jàng rek te bañ see dugg di ko bind nee na kasanika noonu sayf yi mën ngaa jàng sayf yi wal yamaani ak yamaani mooy xisbul xisbul yamaani wa xayruhu ak leneen yeneen awraad yi tamit mën nga koo jàng te fekk ne yaa ngi yore janaba kasa niki nii ma ko waxee man Seex Seydi Haaji Maalik rawa nan ko lan lan ko solo Tijaani jëlee ko ci Seex na Tijaani Cherif kon ba léegi siagement yi waxut tariixa bi benn imaam moo fi am muy Seydi Ahmad Tijaani ñi des ñëpp ay maamam la te moom nag waxu waxu imaam bi rek la jottali mu ne nag tas ni na nga settee ci yi nga sana sañ jàng te yoruloo njàpp walla da ngaa yore janaba na nga ci settee du yëpp de fatihatal kitaabi fatihatul kitaab bi niyatil ismi laa wax nag soo jàng fa fatihatul kitaab bi niyetul ismi amuloo droit di ko jàng fekk yaa ngi am janaba amuloo di ko jàng yaa ngi yëru njàpp bilaa itaabin julul benn yeddeel fatihatul kitaab eh, xam nga fatiha yaa ngi ko jàng toujours sa julli mën jàng mais soo ci yéene nag bi niyetul ismi ba amuloo droit nag ah, di ko jàng te fekk ne yëruloo njàpp am loo droit tamit di ko jàng te fekk ne yaa ngi sobe moo tax mu ne tas ni yan nanga nga settee fatihatal kitaab fatihatal kitaab bii neeti ismi ci turu yéen turu mag wa bilaa itaabin ci benn yeddeel ak yeneen ci ay lawraat yoo xam ne ay ay jawatu kamal ak salaatu xëy bi ak yeneen yoo xam ne ci mi ngi ci lawraat yi lawraat tariixa bi la bokk kenn amul droit di ko jàng fekk ne dangay nekk ci leneen mu ne walaazimi duaa baadal wirdi la alama tasillu doona tardi soo wasiba ba pare wirdo ba pare xadara juma ba pare walaazimi na nga taqoo adduaa a ñaan baadal wirdi gannaaw wirdo wala wasiba wala xadara ndax soo ko defee la alama ñelante koona tasila nga jokk ci àggati suñu borom a tardin te kenn du la dàq gis nga nit dana àgg ci pays yàlla ba ba pare ñu dàqar te suñ la dàqee soo ñëwoon sax ci àddina bi day day neex mais ci wudd fas yi nga jëm fi ñuy yeew fas yeeg mbaam yeeg yooyu fan lay sàdd moo tax teggin yi ñu nekk ci xadara ba moom lañ lay jàngal mooy waral ñu naan la da toog banque sa ñaar tànk yeeg te parce que teggin yooyu da nga ko war a jàng bala nga àgg ci pays bi parce que pays yàlla bi benn faux pas soo ko defee ci ñàkk teggin da lay dàq kenn du la pardonné léegi nag soo wasifa ba pare tamit danoo bëgg li nga doon wasifa wala li doon zikkar nga toog di ko duñu xam nga xar ni muy def xam nga xar su lekkee bëccëg yëpp guddi gi da ngay gis muy génne nank li mu doon lekk di ko sàqamiwaat xar yi guddi dañuy sàqami loolu mooy duñ léegi nag nit ki nag su jaamu yàlla ba àggal wala nga jullit bëgg na nga na dégg léegi nag di duñu li nga doon def anwaaraat yi di tot ci yow nga na dégg foofu noonu bëggoon nga gaaw naan ndox bëggoon nga gaaw def dara moo tax diir boobu ñuy ñaan nga bëgg nga na teg teewlu jamono ji ñu laal mbalaan wasi boobu de wax na ne fii ñu ngi ñaan ngay xool mbalaan mi kenn du la mas a dagg tariixa bi doo mën a dagg tariixa bi boobaa dañu bëgg nga toog nag di commencé duñu zikkar yi nga doon def di ko xalaat di ko xalaat muy ñëw ci yow nga di ko duñ bi comme ni xar di duñee li mu doon lekk diir bi waaye bëggoon nag ñu ne yu saloona ala nabi wasalaamu ala musa walhamdulilahi rabbil alamin na nga jóg saaj ma saaj da baax nee na laaj maa yi ku ko masaan def mun la demal nga yees lu xam nga lu si garaaw sëriñ bi nit ni mu doon dundee fekke nag daan dund soxor soo dekkee tamit noonu koy soxore ku sa bon xol bon koo xam ne ci dafa dund mais xol bu bon la yore su dekkee xol boobu lay dekkaale koo xam ne ci dafa amoon yitte su dekkee tamit yitte jooju lay dekkaale yonent bi nag sallallahu alayhi wa téere yi yëpp histoire yëpp xam na ne su daan saafonte ak nit wala muy nuyonte moom su la joxee loxo yow yaa njëkk rocc waaye moom du njëkk rocc mukk yaa ngi dégg te lii mu wax tamit xadis la ndax yonent bi dafa toog ci jotaay ñett nit ñëw kenn ki dafa xuus ba ak ci kanam yonent bi pour déglu li yonent bi di wax kenn ki yam sa mbooloo ma fa mu yam fa mbooloo ma yam mu yam foofa toog kenn ki taxaw tuuti dem yoonam yonent bi ah ki xuus ba ak ci digg mbooloo mi day ba ci man day xér na yàlla na ko yàlla doolu xér ndax xér gépp xeet yonent bi moom amul amul ngaañ mu ne nag ki toog ca mbooloom fa mu yem jëfandikoo na sunna yàlla na ko yàlla gën a dolli sunna ndax xaytun taha majlisun kaana juluusu lahu lam yajlisanna bi xayri dikri walam yaqumi bi xëyri zikri yonent fu mu mos a ñëw ci jotaay fekk mbooloo ma toog fa mbooloo ma yem lay toog kon kooku jëfandikoo na sunna mu a ko du mooy dem nag du mooy na xéew la yàlla maanaam yow mi jóg dem ñu teewal mbalaan wasifa rek ñu teeral ñu jeexal rek ñaan gi départ gudd nga jóg dem dangaa du mooy parce que yonent mi ngi toog ba léegi jógul cheikh a ngi toog xulafaaw arbaa ñu ngi toog ba léegi jógul maadaama ñu ngi ñaan ba gaa safan day commencé jog yonent bi di jog motax ñi mag ñi ko xam ñom ba lañu jog dañuy lembalan ba pare dañuy ñaan ba agal lembalan mi ba pare nag jog jóg waaye di gu upp warulaa warulaa wëbb ci wasifa bi daanu avant ñaan gi rek nga départ moo mu lazim na nga taqoo ñaan gi ba'dal wirdi gana wirdo la tasil ñalanti ko na kon da nga eh, ndaxte nga jokku àgg ci xadara suñu borom kon ñaan gi dalay jokkale yóbbu la ci suñu borom teewlu gi ngay teewlu ak teew nga fay teew doona tardin wala wala fi ñu lay dàq kenn du dàq ci pay yàlla bi loolu tamit yàlla nañ si yàlla dimbale kon ñu yàlla foofu suñu darsu tey di ñaan yàlla yàlla taxaw ñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu baytul wilayati bi الكنوز وختم الكل